لله رب العالمين السلام على من كان يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى الذي فرض زكاة الفطر من على كل مسلم حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير ساعة من تمر أو ساعة من شعير تناول على جد شيرة صلى الله عليه وسلم sant yàlla bi nga xam ne mooy may ñu màng weeru koor bi ba du ko soob mu am ko waaye yàlla mooy jagleel jaam bu ko neex mu nangu ko nangu ko topp yàlla sant nañu ñu xoor nañ yàlla ñu nangul sant nañu ñu naafee naafee nañ ba ci fan yu mujj yi yàlla ñu nangul waaye am na lu ñu sant nag ci mujjal koor gi nga zakaayam tëb koor zakaayam tëb koor farata farata mooy lan mooy loo xam ne jullit bi daf ko war a ba pare jëfee su ko jëfeewul yàlla bindal ko bakkaar wala gars yi tënk ko ci yooyu bokk waxuma la sax yàlla bi nga xam ne moo ñu bind waaye nguur ak àdduna rek dana am ay mbir yu tëral yoo xam ne kenn sañu koo xëtt koo xëtt rek yoon dal sa kaw te kenn ku nekk yi da nga góorgóorlu ba xam yooyu état tëral nga respecté ko ngir bañ daan yi xam ne nii war a daanu sa kaw boo ko kon nag jullit bu ne war naa fexe ba xam farata yi yàlla farataal ci moom ba pare respecté ko ngir ragal ak moytu mbugalam yàlla da nga xam ne kenn ak nii aw moo jot du ci xam farata yàlla dama doon liggéey du lay sax da ngaa war a jàng ba xam su ko defee nag jotaay yu mel nii fàttalewante yi nga xam ne yàlla sant nañu ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne bu xëyaan ci weeru koor ba dog tey war a julli ji korite waaye jii la daan jàng muy fa salla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ dogaan ci koor ba mu war a julli ji bu xëyee balaa julli ji laay ji garjana tahamoye muccuga yàlla ne ku génne asakaay mu dem koor texe na ba pare tudd boromam dem julli ci dañoo bëgg bisu korite boo génnee sa kër di julli ci ngay wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar ñetti yoon baax na ca kaw lan ngay demee ci jumaa ji boo demee ci jumaa ji bu noppi di ko wax ba ñu imaam di jëlee yàlla tey génne asakaay mu tam koor ba pare di tudd boromam di wax allahu akbar ba pare julli julli kaay bi muy korite kooku texe na yonent sallallahu alayhi wasallam bu xiyaam laay ji dana jàng su paree mu séddale asakaay mu tam koor bi door a génn dem julli ci kon asaka jooju liñ bëgg mooy nga génne ko balaa ngay dem julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo farataal asakaay वे पुजली ते पुकुजली जाय वरात नाला दिले आता काय म्हणतो कोरा आलेला वरा मागला जामला वरा गोरला दिले जाम घरी तुले ñaari kilo lañ koy jëndee ci li ëpp ci li ñuy dundee comme ni ko nar a jàngale tuddee nañ ko moom asaka jun nag zakaatul fitri mooy asakaay dox ndax boo toogee ci weeru wat ci mu ko génne loolu wala am na ñu koy wooyee zakaatul fitra fitra mooy lan mooy bind parce que fu yàlla bind rek te muy jullit war na ko génne moo tax am na ñu ko tuddee zakaatul fitra am na ñu ko tuddee zakaatul ruus asakaay bopp yi ndax bopp bu nekk rek war nañ ko cee génne xale la wala mag la góor la wala jigéen la loolu waral turam yi wutee asakaay bi la koor li tax yàlla tëral ko mooy doomu aadama matut lu la yàlla sant lu ne jàppal ne amaana def nga ci loo xam ne yàlla bëggul ko mën naa yàlla jëf bu ko defee weeru koor yàlla koo fonk lépp loo xam ne mën naa wàññi ci yàlla la yàlla daf lay indi bu fóot loolu ba mu set yow nga xam ne war nga fanweeri fan ngir sa borom parce que daay mu tam mu laabal suñu am ci weeru koor wax ji ne wax nga ko ci biir koor bi te waroo koor a wax yëpp ci bi asaka ñooñu boo ko génnee loolu lay raxas daf koy maas jëf yu ñaaw yi nga xam ne jëf ko ci biir koor bi mu nar a yàq sa koor asaka jooju loolu lay dindi kon asakaay ko def koor dafay laabal nit ki ci rëcc rëcc yi mu def ci biir koor la maanaam bu yéreen taqee wala yaramam saabulee ko fóot mu set waaye sa ruux bu taqee ak bakkaar yu mel nii muy asaka yi astafurlah yooyu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne farataal lañ asakaay mu dem koor ngir mu laabal kanam xoor yow mi doon xoor ci biir weeru koor bi amaana wax nga la wax amaana def nga la warul def boo xëyee nag ba boo weeru koor bi jeex nga xëy génne asaka ji balaa nga julli ji mu raxas sa bakkaar yi nga defoon loolu yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na miskin bi nga xam ne xëy na mu war a feet feet gi du feetu jiw wala jiw waaye feetu jullit ñi la jullit ñi nag ñaari xaaj la ñu am ñuy ñàkk su ko defee yàlla nag buñ xëyee génne leen dara jox ko miskin yi ngir ñoom it ñu am lu ñu mën a feetoo ci bis bi ñu yëg na ñoom it ci feet gi lañ bokk yéen su nekk ko génne balaa ngay julli ji da nga xam ne am nga asaka ju yàlla nangu Yawya génne asakaay mu dem xorom kon góorgóorlu boo xëyee rek balaa ngay julli ci nga génne rek yow ne soo ko génnee balaa ngay julli boobu